Shake it up. Yes. Up. Yeah. Shake it up. Up. Shake it up. Yeah. Kida. Kida. Kida man la boy. Kiga. Kiga. Ah ah. Kida man la boy. Ah, ah boy be gane si gane ya. Kan la boy. Boy be gane si gane ya. Kan la boy. Boy be gane si gane ya. Yes. Kan la boy. Boy be gane si gane ya. Ah. Yeah. Ah. Um. Ema muna rap ma nigga mu ne ko ma teeku impro laay def maa ni ha ah maa ngi ay maa ngi filmé mel caméra dama gën ga gaaw mel ari caméra No maa ni ga ma non dama amara ji ah gën a gane si booy maa ni doo sipa ko booy ma neega ji am just been service man la mel yeah ma neega yeah but that's a day on bi jàpp na maa fi soxla booy Dakar ku yëg ñàkk nga ñoo fi dàkk def rap ku gëmul yàgg nga ñu ca màkkandoo ci rap fis ku sóoru yàgg nga yeah mu nga rap am nga talent tax ñu naan ko non ñu la nguur gu la gudd nopp du fi jaay mukk bit bi dafa law oh. dégg nga tuuma yee ku ma sóoru booy ci bit kañ nga tuuma damay rap bit nga naan ma muudu ma. jox la rab ci bi yow boos. doo ngi gis. bët yi ngi leer. yaa ngi forul déggu ma ko. est-ce que moo ngi leer. ma bit bi nekk. est-ce que moo ngi leer. tëf yokkal bët bi ñëw tegu ma ni ah, bi dafa xaw a cool man. bi dafa xaw a leer tax na mën a guma rap man bit bi dafa xaw a low man tax na mën a guma freestyle improvisé wishop dafa xaw a low yow shop xam li nga bëgg boo ci bit boo nee ma laf cat laf cat xam di teg non what the fuck woowee ma foode booy yee la góor a waay dëkkuma géejawaay Bishop dootu boo ci bitte mu ci gën a graaw ay am di teg soppi la cere booy ji la araw dana ko dal wala boob bu mu fa demee nii ma jox la rab ci bit dootu boo ci gën a dëgër fi ok am di teg bi ci ko teg ci tempo jox la rab soppi la karak yow benn tempo ok yaa ngi gis est-ce que yow du déggoo dootu boo ci rab di teg man dama yàgg ah yeah what's up No boy looking nice Yak my arm. Yes, yeah. What's up? Yeah. Young my arm. Uh. young my arm. Um, yo. Let's go. Young my arm. Uh. young my arm. Um, yo. Nakotal, nakotal, nakotal, nigga. Yak my arm. Uh. Yo, nigga, yak my arm. What's up? Let's go. Yes. Young my arm, nigga. Yak my nigga. Young my arm. young my nigga, yak my arm. Ada? Yeah. Yeah. Acha. Nakotal. What's up? Ah. yes uh. jolokaat uh. ba mën uh. na julli benn rakk ok jolokaat ba mën na julli benn rakk waxu akbar aj baar ba mu koy mel ni asamaan am za dala man yow du sa maam noonu du sa maam pour na dafa xees bëgg a xees sal iblis wàccu aduna bëgg a dugal nit yàlla safara ah su dee am na safara na ko safara sama mayen gën a yaadee saxara laajal fu ma jógee ni nga fudul saax la armel gon ma ni nga ñëw sox ma ba may tamalee booy ñu na soxla gëm sama bopp fi ma ñëpp booy soxla takk katisin xamul islam yaa ngi julli mais xamul islam foog constant mbir nu amul temps doo ma koos maa ni benn temps dama pare ni génn ci avec le bëy soo fi menu boy so very cool man yeah yes yeah xala xala wala boog maa tey ni nga am maa ci yeah uh yeah uh uh uh lu tax sa cere ji tey ji la neexul ni si la ko siimalee rek moo baaxul lu tax sa keppaar gi yàgg na feexul laaj ko sa meer ndax ci la la neexul maa ngi la bàmmeel bu ñuul maa ngi ak pel bi ak gon bi di jamee di suul sama si laqe may iblis si gami koy dama seen volcan bu ne la bu jóg naa man dama kuul mais ak ma doom raame xalu rek ko fi toog toog di ngelaw di wàññul taaw waxal ma fekk ñu fàtte ji lafu ci gaaw séeré bi pare bu taw nga gis ay kéwale ki bëgg may gane gu réew lu taw dem sa aram lu aram est-ce que sa daga est-ce sa boss ci damay reede booy ma jëloon rab ci bit mën na dëmm dama lay. reede booy ah bokki naa. ma jëloon rab nga naan. ay rab booy di teg ci bit bi fit dëkku ma. bokk naan ay ni ci Ngaye FM. ci bit bi. dëgg ma gën a bëri fem. yow mi nii war ma boo ci. Yeah. Uh. Uh, sada sobe tanga tanga na boy gonna wa mo na boy ta makata wil ta no da wil ta jaxana yengaluma no jaxana yengaluma digal sada sobe nanga tanga na boy gonna wa mo na boy makata no da wil jaxana yengaluma na ko ndax mom lu da yengaluma wadu tel ngon boy man takuma tere yow do ma boy auto ray gi so daw si auto do daw si tel france italie what's <laughs> oh, cool what's up what's up est-ce que mu cool ma. joxaat ma bët bi. acca acca na dal na dal. ah yes. Bishop Bishop Bishop. ma nega ma nega. ma nega ma nega. dégg nga ma bamtuwaat ko ma nega. ma bamtuwaat ko ma nega. sedal soo bi nga na tàng gonu goo ma lutu tàng na booy. weli te noo weli. jaxaan yëngalu laaj ko ndax moom li da yëngalu ko woddu teel ngeen booy. man dakk ma teel yow dama teel booy. ah soo ko ñimee ndax. dégg nga. bu nga dem ñu fii ci rajo nañu sàng suuf. non non monsieur. jëbal fekk duñ fi am dara. monsieur ah, monsieur. saaru gembi ni affaire ay dara. ci man dara la wóorul maa la fi nekk. di nga yëg rek ci rajo yóbbu nañ ko taaw. monsieur. bi duñu tàkkale. ñaaw faar. ci rajo fii ci yow da nga am arrêt. ñaaw booy di teg nga naan nga gis ko booy. Ah, may ma tuuti. yaram bi tàng na soo ko yow yow soo ko ñemee nagu daal famu si yegg si baal takkal ma jaaj yi fekkal ma nandi duus bi ni metti me xëjëm maal aci mboor ci bi dugg si lu bees ñëw inondé arène bi sa jalgati dikkati waneti jëkka bëggaar mais eh, jël nga oto ma ni yàgg na man vol la ma jël bi yàgg sali gaaw succès bi jëm naa ko yàgg na njëkka fecc taxul te mujjee ci biir gaaw ma ni nga maa fi mën noonu dafa leer eh, famous ban si jox la muy jàllamus engagé guerre bi comme dégool di gën a xuus jama si terrain bi dama seen banatus ret seen pis bay du maa ngi jéegi taprise maa ni nga nangu li xama des ga ipatèer pare na ba pare na waxal ma sa rappeur yi famous pare pour yàq leen immédiat dak tak zigzag fet fet bul coupé What the fuck you people kill me down? Yeah, pare nañ. Yes. Équipe bi to capitaine. Pare ah. Ku fête tabanan ñu passé ngeen. Ñu You ki hip hop bi fi show est-ce que non la ngeen. Yeah, la ñëpp àgg suuf. Kenn du ñëw ko uuf. Pour nga tax ñu fii ci rap xanaa ñu sang suuf waaw. La boy di teg ci fit bi fis. May ma foowal. Ma jot not rap ci fit bi nga ñëw dañu ma foowal. Ngay teg ko boy ci rap. Sa boss chef nga boy ci jàpp. toog si ko teg yow man ngay tàkk. mën naa ko daal monsieur ma réew ci biir yow. ah man ci la laaj ci biir su fay yóbbu laa koy ñëw. waaw si. yow soo ko ñëwee nag dal fa mu si jag si na ca xabal takkal ma jaaj ji fëgal ma na di tuuti suy di metti meq jëmaal. ci bande bi dugg sel ba ñew inonde R&B ci rap da jël kat yi dikati wané ti jikko bu gaar mi jël nga automane nga yag na fol la ma jël pour yag sel gaaw parce que sa bi jom na ko yag na ñëk fay ci xotam mu ci gaaw getu gilem ci benn bay ëpp leen biri bay gëlen shop tolni e eh, bamba je entraîné ba céné tegul sa xel wara mëna mëna mëna dop push up ah, kala sen digga lay jëkke soga du wari sa bop sa beut fu sore topp ko gem sebab sa bopp man bañ ka dëgg ñett at kaso président li nga opposant am si gouvernement ñi lay boy sans ñu xam sa pof yi mu toll dooni da ngay graw dañuy xaj déedéet tey ñoo ñoo di or yàpp bukki beñu xel ci gerte ñaay ah investir ma nigga dafa jot mu baay ah monsieur ma ngi ni wax na di xob ni ko dama jappé mu jiñ ya nga yéw di yo ya fekk na ma xey hey légui ma ngi vip ñu ñangi gëttu bé ya yes néga rega guma sek classic ya okay ni cool gaay ma gaay ma xeli gess ga muy cool ni ya ya ma xalay rab du mak xalay rab du mak xalay rab du mak xalay rab du mak xale yi boo ko mel ni man foog nga duuma ma fukki junni mag xale yi rab du mag xale yi du mag xale yi ko mel ni man nga duuma booy fukki junni mag may dox di wax ngay dox di toog kon at bi junni ma ñàkk jàng rab waral kon foog mu fay ma ma xale rab du mag rab du mag rab du mag bëgg mel man foog nga duma booy fukk junni ma ngay dox di wax ngay dox di kon at du ma sama jàng rab waral kon foog mu fay ma ma Fight my money. You lu tax sa lu tax sa waaw ok ok noonu lay euh, noonu lay demee euh, ça se passe sur la mer de bande fréquence 93.5 euh, Ngaye FM accompagné de votre meilleur DJ ok noonu lay demee for real forever comme ni mu leen ko waxee woon yéen ngi am tey Famousta ak. Amza Sika ok Amza K Sik ok euh, noo lay demee ñoom ñoo doonoon sama invité tey euh, euh, couleur urbaine comme ni mu ko waxee couleur urbaine c'est tous les dimanches à partir de 15h jusqu'à 16h sur Ngaye FM noonu la demee ñoom ñoo doonoon sama invité waxtu bi maanaam daf ñu dab xoj ñu xoj <laughs> léegi léegi dañ leen bàyyi ngeen tàggatoo comme par exemple ku bëgg jot eh, Amza nan lay def mu joxe contact yi after après Famoussa eh, ñu tàggatoo. Eh, what's up, Amza Kassi from Dakar ngay am live and daarin gain. Waaw Amza pour nga am ko méttiwul ah. Méttiwul. Hmm. ngay jël suñuy coordonnées rek bu nekkee nañ ah, nga nga nga joxe. Waaw Amza da ngay def 78 78 476 06